ayu bismillah bismillah ayu bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokk yi man la maritu fii ci saveur planétaire incha allah seene yéene dellusiwaat nii tey ci kàttanu yàlla euh, ñu des Sénégal ba léegi tey euh, cere baasi salte cere bu ñu bomb moom laa fas yéene togg incha allah mais ak ganaar ganaar lañ koy toggee tey léegi li ñuy def gis nga taxas nañ suñu ganaar ba pare teg fi suñu diwlin ganaar gi dama koy saaf fii suñu gën ñu ngi fekk soble am sori ñu ngi fi ak euh, laaj garlic mooy ail poivre garlic plus mooy euh, ay plus bi laurier xorom moom la ñëw nokkos ba mokk daal di ko piqué ganaar gi piqué roof ko incha allah ne ko rell fii ci cin bi saaf leen ba ñu doore ñu ah, jub bismillah mbokk yi dellu si nag gis ngeen ni suñu ganaar gi nii laa ko ay ganaar yu ndaw la nag kokkole rek laa jël ñaar nii ku mu neex nag mën jël saay su ganaar bul neex tuuti xorom rek laa ci poobaruma ko sax ndax euh, ñeex mi war nar a poobar gis ngeen ni ficelle laa jël moom mooy euh, wëñ yi ñuy waññaaree bu ñuy toggee moom laa jël nii bandaas ko ci ganaar yi bañ na ngoo ngoo daaral léegi gis ngeen nii suñu diwlin a ngi nii tàng na dañuy saaf ganaar bi incha allah ay gis suñu ganaar gaa ngi noonu ñuy saaf léegi ñu ñëw fii gënd bi ba surtout li ñu doon piqué ganaar bi poivre bi ak euh, sel bi ak euh, aay bi ak euh, garlic clove bi dañ ci dolli tuuti aay damay ñëw def ci tomate bi oignon yi ak tomate bi ak lii lii lik la lik mooy euh, poireau poireau mooy bi ñuy def ci suppu yeeg ci cere yi lii man sama yaay côté bii la daan bëgg di ko ci def côté bii daf ko doon bàyyi mu gudd mu takk ko tëmbal ko ci mais man lépp laaj ci nokka lépp laaj ci naan réew voilà gis ngeen ko nii aywa mën nga ci gëmm bi ñëw bi duma euh, ko bàyyi mu gën a doore nii ni mu def nii rek baax na ko bàyyi mu gën a doore noonu li mu def rek baax yi léegi ñu def taxaw seetlu sama yaay moom li mu doon def laata mu doon saaf ganaar bi bu fekkente ne cere bàcc salte bu ganaar la légumes yi lay njëkk a saaf muy carotte bi ak euh, pomme de terre yi ak patate bi ak euh, yomb bi daf leen di saaf mais man tey duma leen saaf euh, soobandoo rek laay def <laughs> comme ni ma ko baaxoon defee yépp laay soobandoo léegi di macha allah diwlin bi damay ñëw wàññi tuuti su ko defee gis ngeen fii ñu ngi fi ak suñu euh, tomate turque bi bu neex ba rek mi ngi nii ma jël ci ñetti kudd yu toll nii rek du ma ko xóoyal nee naa leen xóoyal bi day tis ci biir kër gi yëpp taqal ko damay ñëw nii rek ne ko yor fi dèjà lii diwlin bu tàng la euh, saaf ganaar moo may booleeg diwlin bu tàng wala firiir maag diwlin bu tàng defuñ ñen léegi gis ngeen fii nii suñu nokkas bi mi ngi nii de pare na incha allah bu ñu ñëwee tàllaale suñu tamaate comme ni ñu ko faral di defee di ko cay muy jóg di cay muy jóg balaa ñuy ñulu ko ñu jël suñu genn wàllu nokkas bi nekku ci réel mu ànd ndox moom di jóg incha nii la def dañuy wàññi diwlin bi sotti ko fii voilà ba pare nag ñu jël tamaate bi ñu gis ngeen ñu ngi ci tegee nii tamaate bi diwlin bi changé ma ko même diwlin bi same oil bi ma doon fryé de chicken am ñu ngi def same oil macha allah léegi gis ngeen ko nii nii laa koy def voilà. bàyyi leen ni ñuy gundus gunduse ba yàq forme ma teg ndànk na le sama ndox ñëw ne ko ci cay di ko ci bàcc bàccal ba mu ba mu <laughs> ba mu tiit ni ko gaa ñuy waxee euh, by the way maa ngi euh, nuyu euh, suñu mbokk bu baax Khady Ndiaye te nekk Canada moom tamit ak Oumou Love nekk fii nii New York Bronx macha allah sama xale yu baax yooyu ñoom daawul maanaam daal xam naa ku lim am koo fàtte loolu laay éviter mais ñépp ñi nga xamante ne ñi ngi jàpp ci saveur planétaire bi ñu bégee lu ñu dugal ngeen seetaan ko macha allah aimé ko encouragé di euh, dugal ay critique nga xam ne dinañ ci gën a mën a defarwaat gën ci mën a yokkaat suñu bopp ak lépp ñu ngi leen di gërëm di leen sant yal na yàlla fay leen yiwi àddina ak àllaaxira euh, lii rek euh, li ngeen di def rek moo ñuy gën a encouragé di ñu gën a pousse ñuy gën a mën a rakkaaju lépp yi telli telli rek di def ay bi ngeen suñu tàllaale bi suñ ndox mu tàng ñu ko ni dañ koy répété yeneen ñaari yoon mu dox ñu daal di ci ci suñu tuuti paprika lu toll ak benn kudd bu mag paprika mooy sol-sol lu marok bi incha allah bu ñu paree daal di jël ci suñu nokkat bi jël une bonne partie ci nokkat bi nekk ci réel beneen partie bi bu léegi ñuy ñoree dañuy tëmbalaat suñu ganaar ñu newaat ko ci réel li ñu àndandoo di nongi nongi ñoom ñëpp mo nga gis ngeen ko ni ñu naan ma ay day xëm ak lu la ñu wax ma man leen lu sam daal boo leen fi jógee directement ca lavabo boobu ngeen di jublu ji raxas ji kàddu lii mi ngi ni gis ngeen ko nii mag ñi dafa am lu ñu daan toggee démb mu neex set sel wér mais togg léegi moom dara organique bi am na ci togg léegi yu bari yoo xamante ne dafa artificiel ba mu ëpp lu ne ñu ni ko ci réel lu ne ñu ni ko ci réel bu ko defee nag booy lekk yëpp doo xam ban cafka la lay jox doo xam ndax def ka carotte la doo xam ndax caf kaw ñam ba ñuy lekk la doo xam lan la donc fii moom macha allah dañuy bëgg di bàyyi mbir yi muy simple rek waaw di simple tey jaar yoon wér tey toq toq ci biir gémmi ñi toxum toxumi neex bu mel maar day yem si awa na rafet awa gis ngeen nii léegi paprika baa ngi mais bii nii bu xaw a épicé bi bu xaw saf kaani bi tuuti moom laa jël tuuti rek laa ciy sànni ba pare dañ ko smock donc guubu neex lay jox mbir mi day mel ni lu ñu toggee ak mat xetu su mag bi noonu la ko gis nga lu tolloog lii rek doy na voilà léegi li ñu gis ni moom it tin la tin bi tam ku amul tin mooy euh, time lañ ko woowee en anglais tin bi ko amul euh, mën nga jël herbe de province boo ko amee mais tuuti mu bañ a bari sinon da yàq sa gowu cere voilà gis nga ko ni tuuti rek mu bañ a bari ndeysaan tam xarit la may fàttali temps bi sama yaay di dund yal na ko yàlla yërëm dañ daan dem bu marché Sandaga bi fa wutee ji tin ak yomb dañuy war yomb bay bëgg a dee <laughs> aw bismillah legui ñu ñew na ci réel ganaalu nokkat bi wala so li ñu jënc ko ci kanam ci inshallah ñu indi ko wala ñu di yàbb yi dugg na ñam bu ñu ni ba ñi dox ñu dal di ñu wala ñu ko def ko yépp jaxam mo ngi bu doggé ñu dal di ñuluk suñu ñu liggéey ba pare nag tëmbal suñuy légumes chou euh, ñambi baa ngi nii euh, manioc bi patate douce tey defuma pomme de terre mais ku bëgg mën nga def pomme de terre carotte yomb bi mi ngi nii euh, green squash lañ ko fi woowee yii ay poivron yu ma fi yoroon congelé woon ko sànq may ubbi congélateur bi seen leen ñuy taxawaalu yàqu ci dara ñëw nekk ci réel laay def fas sama kat aywa mën nga léegi dañuy ñëw ñuul gis ngeen ni xorom si tuuti laay def bu leen fàtte ganaar bi dañ ci wisoon xorom te foog ñu tëmbalaat ko nokkas bi amoon ci ci xorom ci ngeen ko mo ngi gis ngeen ci dara xamu ci dara daru fi ci ngeen ko ni ma sha allah tamaate bi day maase wat non lay jógee diko tay ko defé nak ñu ñu ñuul bu ñu ñuulugee may ko 5 minutes mu bax rek ñu jël légumes ñu tëmbal ci inshallah mo mu daal di tëmbal suñu légume bàyyi leen ñuy toqi toqi ci kanam tuuti ñu jël suñu ganaar neleen leen ci réel teg ci def ko fa bu ndaw daldi bàyyi nag euh, mu ñor diw bi tëmb ñu tonni tuuti ci diw bi jël ci ñeex mi fekk sàppali nañu yëpp bu ñu jëlee ci ñeex mi ba pare nag ak ci diw bi moom lañu ñu préparé li ñuy bombee incha allah ay bismillah mëngo yëf yi baax na dañuy ñëw ndànk teg suñu légume gis ngeen leen nii wax naa ne ni poivron bu fi desoon so li euh, it's optional voilà facultatif sànni ci suñuy feuille de laurier allah yomb bi dafa gaaw a ñor moom bu ñoree rek ñu seppi ko incha allah voilà gis ngeen leen nii voilà mu gok léegi dañu ñew ub cin li may ko mu noppalu ba ci kanam tuuti ñu dal di yëkëti li fi ñor génne dal di jël ndank suñu ganar digël ko ci mok desitu nokkas ba leen le fa suñu kanam legi fini, ni li ñu gis ni euh, sucre roux brown sugar mo nekk ni lii raisin sec la golden bi bi euh, raisin sec bu noir bi la gis ngeen fi ni poivre la ak sel lii euh, suñu haricot blanc la léegi incha allah bu li demee ba baar ba yëpp ñor ba lii dugg-dugg yëpp ba mu toqi-toqi damay tonni tuuti ci diw bi jël ci ñeex mi voilà sama yaay moom bombam ñeex bee doon ëpp diw bi tuuti diw la doon jël jël ci ñeex mi ndax cere ji neex a mëq su ko defee nag tuuti diw ñor laay jëlit ñëw ne ko rell fii teg leen fii ci taal bi bàyyi leen ñu jàpp forme moom du jël yëfi di ko kii noonu fii bomb bii lay def bu bomb bi day neex même léeg sax bu yaramam tàngaan lool dafa daan defar ay boulette boulettu viande hachée ay jagawu boulette yu ndaw boole wàll ko fii waaw bu yaramam tàngaan yooyu la daan def <laughs> bu nang bu nangoo waañ wi ci loxo ñëpp yooyu la doon def jàpp ñàmburam mais macha allah euh, tey duñ defar jaga bulet bi yi nii lañuy def nii rek euh, ba beneen euh, bismillah léegi gis ngeen nii suñu ñeex maa ngi commencé jàpp forme nii léegi li ñuy def mooy ñu koy wàññi voilà wàññi fo bi lay def fo bu yem bu yem rek légumes yu mën a jël seen temps ñor ñu daal di diw bi daal di ñorit bu tëmb ma soog a mën a tonni def li may def léegi fii nii mu ngi fi ak suñ cere gis ngeen ko nii macha allah cere bu xees pecc léegi li may def dañ ko laal ba pare nii cere bi léegi ndox mu tàng mi laa koy kaase dama ko ci def ba mu muur ko voilà su ko defee nag ma jaxase lépp jaxasoo ma teg ko su ma paree daal ni ko réll ci microwave bi tayee ko foofu tey duma tayee inde bi micro bi laa fas yéene tayee incha allah eh, bismillah gis ngeen nii suñu cere ji naan na ndox mi ba pare macha allah léegi dañu ñëw def ko ci microwave bi tay ko fa voilà dama ñëw couvrir ko tey ko ci microwave bi benn 10 minutes mu gën a ubbeeku gis ngeen nii léegi la ñuy def ci desitu nokkas bi incha allah parce que bëgg ganaar gi ganaar gi laa bëgg mu dugle parce que buñ fàtte ne ganaar gi ñorul mën nga su ko defee yëpp àndandoo gundus gunduse bu ñu jàppee forme ñoom ñi ma ñëw seppi leen incha allah daal di tonni li ñu bombe ayo bismillah seen ganaar gi ni ñu ko ci ñor wéel voilà voilà mën nga bi eh, bismillah mbokk yi gis ngeen ni suñ cere jàngee gundus gundusee gis ngeen fii nii laa ñëw jël ci ñeex meeg diw bi gis ngeen lee suñu bomb bi tuuti diw ñor laa defee lu tolloog benn kudd bu mag bu ñuy lekkee voilà ñun suñu kër duñu bombee diw kese ñii la sama yaay daan bombee jël yu bi yaa ba yëpp ne leen ci réel mëngoog ñeex meeg diw bi tuuti ci diw bi rek li ci des ñeex voilà doy na mëngoog léegi li ñuy gis nii li ñuy gis nii incha allah moom la jaxase ba mu jaxasoo taal na gaz bi def ko fo bu ndaw bàyyi yëpp maasaloo ñoom it ba ñu tiit ba jàpp forme ba diw bi yéeg suñu cere ba ñu tayoon ñu bomb ko incha allah léegi lii nii fii maa ngi ñëw sànni ci tuuti tin rek tin rek laay njoosaat fii tuuti voilà ak bismillah mbokk yi gis ngeen nii gis ngeen ni macha allah suñu bomb baa ngi nii gis ngeen bomb baa ngi nii yóbbu yàbb yi ñu ko booleeloon yëpp léegi fi mu ne nii moom it toq toq na jàpp na forme damay ñëw fay ko voilà suñu cere bi ñu tay gi ne la léegi gis ngeen suñu ñeex mi nii macha allah damay ñëw léegi nag seppi légumes yi voilà seppi légumes yi ndànk bàyyiwaat ganaar gi mayaat ko benn 10 minutes mu cëpp cëpp ci biir tuuti waaw cëpp cëpp ba jàpp forme lay def sama grand pape Demba maa ngi lay lu bari grand ak sama chéri Debbo Diayte maa la wax lii dem jayte yal na yàlla barkeel la leen barkeel njaboot ngeen mboolum jullit cere ji yéen ko moom gis ngeen ko nii tey nañ ko suñu cere ji mu yàññi ba bëgg dee macha allah cere wu saalum saalum la nag day sew ma ne ko ci day sew aw bismillah ma léegi dañu ñëw daal di bomb sépp suñu légume euh, lépp normal na may yëfi daal di cëpp cëppi waat tuuti moom poulet ganaar euh, dégg nga maam bu ñu paree daal di leen séppi ñëw nag dressé suñu yi ñëw nag bomb cere ji gis ngeen ko ni ñëw jël ci suñu yóbbu yaaba yi seen nga leen ni nekk ci réel voilà daal di bomb ba mu maase ariko ariko ariko blanc bi man bu dijj bi moma gënal bu dijj fotañ bi daal moma gënal xamna nak mom mère bu fi newoon machallah allah bu sew be koy gënal mëngoo ko defuma yépp nak desal na fa léegi li lay ñew bomb ko ba lépp bomb ba ba téré bi Eh, bismillah mango gis ngeen bomb nañ suñ cere bam tere bi mi ngi nii macha allah bomb nañ ko bam jàpp forme voilà beneen yoon incha allah ñu defal leen bi ngeen xam ne maître Diop day defar jago yu sew daal di ko ci boolewaale ci bomb bi léegi ñu ñëw nag dressé suñu ay mbokk yi kon nag bismillah mangoog lii la ngeen indiloon tey jii ci saveurs planétaires muy suñu cere bomb macha allah. boo xam ne ganaar lañu ko toggee gis ngeen nii euh, suñu yóbbu yàbb yomb yeeg ñoom seen njaay patate douce a ngi nële euh, ñàmbi gi euh, ñaam manioc ñoomin chou chou baa ngi ci suuf ak ñoom carotte ak ñoom poivron yi ñu sànni ci kaw ak suñu ñeex bomb nañ ko ñoom raisin ak lu ne donc lii la leen indiloon tey fii ci saveur planetaire di wax rek nag incha allah vidéo complète yi yéen ma gën a xam mu ngi ci youtube ba aywa na rees ak jàmm bon appétit Marie